wajalilaayi maskani tuubaabaat misras mi abijaayi xayri man abaat aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallam ala sayyidina walana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa jaalni bijaahi rashidan murshida mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen baalu xaq te di leen ko baal di jiite ci nuyu bi ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom subhanahu wa taala guddal fanam te yokk wér gi yaramam di ko ñaanal mbooleem jullit yi di ko ñaanal mboolem taalibe yi murid yëpp. Touba Ca Kanam dellu siwaat na ngir leeral leen li nga xamante ni moom mooy ab tolluwaayam ci ab liggéeyam maanaam koppar yi nga xam ne dugg na ak yi génn ci weeru mars atum 2022 ñu di ko wax bilan financier ci biir loolu dañ koy tàmbalee ci li nga xam ne moom moo dugg si ci biir kees yu Touba Ca Kanam ñu ko dëkk bu di Touba ci weeru mars atum 2022 dugal na ci kees yi Kanam lu toll ci 62 millions 9000 francs

cinquante mille bu ñu demee Bambey ci mois de mars bi dugal nañu ci kees Touba ci kanam cent cinquante mille Diourbel dugal nañu un million quatre cent dix mille Thiès dugal nañu neuf cent mille Daïra Babul Ayaat yi Añaam dugal na cent quarante sept mille croisement Diaroumbé dugal na quatre vingt dix huit mille quatre cent Joal six cent trois mille Kaolack deux millions cent mille Kébémer un million cent quarante mille Kédougou cinq cent soixante deux mille Saint-Louis huit cent soixante cinq mille Louga deux millions soixante neuf mille deux cent Mbour deux million trois cent vingt neuf mille département département Dagana quatre cent quarante mille Modéry cinquante mille Goudiri sept cent cinquante mille Bakkan Laman cinquante mille Darou Salam cinquante mille Tawanjaay cinquante cinq mille Fatick cent dix mille Vélingara cent trente mille Madina Touré deux cent mille massification quatre millions huit cent quatre vingt treize mille màggalu Kazu Rajab yëpp la ñu dugale woon loolu muy waa commission massification li nga xam ne mooy stand gi ñu sampoon ci jamonoy màggalu Kazu Rajab dugal na quatre millions huit cent quatre vingt mille Daaru Salaam versement anonyme muy ñi nga xam ne dañuy barkeelu ci liggéey bi te ñu bëgg ñu joxe te du ñu joxe seeni tur mu ngi ko xaymaa mi ngi toll ci un million cent soixante deux mille sept cent quatre vingt kon bu ñu xaymaa li nga xamante si moom moo dugg fii ci zone nationale ñu di ko wax fii ci Sénégal li fi dugg ci ay koppar te bàyyi ko ci mbokk taalibe yi ci weeru mars mi ngi toll ci cent neuf millions deux cent treize mille neuf cent vingt cent neuf millions deux cent mille neuf cent deux mooy li waa Sénégal dugal ci li nga xam moom mooy kees tubaa ci kanam ci mois de mars. éclairage domestique 700000 mooy lamp yi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy wecci mbokki taalibe yi tam leen koy weccee lu toll ci 10 000 francs dugal na jaay nañ ci lu toll ci 700000. location machine mooy jumtukaay yi nga xam ne Touba ci kanam da koo am te léeg-léeg ay mbokki taalibe di ko aajowoo te buñ ko jëfandikoo ba pare am luñ cay war loolu Touba ci kanam loolu dugal na 600000. opération wàllu muy opération bi nga xam ne moom la Touba ci kanam taxawaloon. doon wàllu mbokk taalibe yi ci inondation yi li ci dugg ci xaalis ci mois de mars mi ngi toll ci deux millions quatre cent soixante quatorze mille huit kon dañuy dem ci bitim réew xool ñoom li ñu dugal ci li nga xam ne moom mooy keesu Touba ci kanam ci mois de mars bu ñu ko tàmbalee ci zone Amérique Argentine six cent soixante dix mille États-Unis six millions trente et un bu ñu ko boolee lépp lépp waa zone Amérique li mu dugal ci mois de mars ci keesu Touba ci kanam mi ngi toll ci six millions.

bu ñu bu ñu xaymaa li zone Europe dugal ci keesu Touba ci kanam ci mois de mars bi mi ngi toll ci onze millions cent quarante mille trois cent cinquante bu ñu demee ci zone Afrique Gabon cinq cent vingt huit mille cinq cent Côte d'Ivoire un million libi soixante quinze mille Togo quatre vingt mille Mali million quarante deux mille deux cent Maroc deux cent mille Afrique du Sud. 1 million 150 mille Guinée-Bissau 686 mille bu ñu totalee li nga xam ne moom moo dugg ci zone moom moo bàyyi ko ci zone Afrique bi dugg ci kees yi Touba ca kanam ci mois de mars mi ngi toll ci 4 millions 767 mille 700 kon bu ñu xaymaa li Touba ci kanam dajale ci wàllum koppar ci mois de mars diggante zone Afrique Europe ak Amérique ak zone nationale ak carte ak Russie ak location yeeg yëpp bu ñu ko xaymaa Touba Ca Kanam mi ngi encaissé ci ay keesam ci mois de mars atum 2022 135 millions 600 mille 772 135 millions 600 mille 772 loolu mooy li Touba Ca Kanam encaissé ci mois de mars atum 20 atum 2022 kon dañuy ñëw a yéen ci li nga xam moom mooy décaissement yi bu ñu ko waxee mooy li nga xam moom moo génn ci koppar yi Touba Ca Kanam ci mois de mars atum 2022 ñu tàmbalee ko ci chantier université muy bâtiment R plus 3 bi nga xam ne Touba ci kanam mi ngi koy tabax ci université bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di tabax def nañ ci ci mois de mars 29 millions 546 mille 176 poste de santé ndaam muy bërëb fajukaay boo xam ne Touba ci kanam mi ngi koy tabax foofa ca ndaam def nañ ci mois de mars bi 1 million 422 mille 500 poste de santé Touba Ndiarème bërëb fajukaay bu Touba ci kanam di tabax ca Touba Ndiarème def nañ ci ci mois de mars bi million millions 188 mille 581 bu ñu xoolee total li nga xamante si moom mooy ODY muy opération defar yoon yi te Touba ci kanam sémboon ko ci at malin at yee ñu génn ngir taxawu mbeddi Touba yi def nañ ci ci mois de mars atum 2022 bi 23 millions 366 mille 636 yoonu ndaamaatu comme ni ngeen ko xamee woon Touba ci kanam tàmbali na ko ngir liggéey ko ndax ku ne xamoon na ni bërëb la boo xam ne bu naqari woon a jaar la ci jamono yële ñu génn ay at a ngi nii mu jaf ay jafe ngir nit ñi di jaar Touba ci kanam bi ma ko tàmbalee ci weer wala ñu génn ngir defar ko jamono ji ñuy wax ak yéen defagul na ci million millions 5 mille 300. commission communication nga xamante si moom moo moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum yaatal ak siiwal liggéeyu Touba ca kanam ci mois de mars bi atum 2022 génnee na 25 millions 705 mille loolu nag bu ñu ko waxee mooy li nga xamante si moom mooy jëmoon ci wàllum koor gi ndax ku ne xam na ni jamonoy koor dafa am bëri ay publicité. ak ay partenariat yoo xamante am nañ ko ak këru tasukaay tasukaayu xibaar yi comme ni ngeen ko doon dundee ci weeru koor gi bu ñu xaymaa li ñu ci liggéey ci wàllum télé yi ak rajo yi ak site yeeg lépp rek mu ngi toll ci vingt cinq millions sept cent cinq mille francs commission scientifique muy commission bi nga xam ne moom moo yor jëm ci wàllum mi ak yar bi ñoom mois de mars dugal nañ ca quatre cent soixante dix neuf mille cinq cent chantier base ba def nañ ci un million huit cent cinq mille trois cent total logistique muy li jëm ci jumtukaay yi nga xam moom mooy oto yi yu Touba ca kanam ci mois de mars bi dugal nañ ci huit millions six cent cinquante huit mille sept cent quatre vingt dix neuf loolu li nga xam moom mooy jëmmi oto yi ci defaraat beeg vidange beeg ak li nga xam moom mooy carburant ba cay dem la moo toll ci huit millions six cent cinquante huit mille sept cent soixante dix neuf commission reboisement. muy commission bi nga xamante si moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum naatal dëkk bi ci lu jëm ci wàllum ay garab ak pépinière bi nga xamante si moom la am fële ci Kër Gol toppatoo gaag ya ca war ak garab yi nga xam moom moo nekk fii ci deux voies bi diggante Mbàkke ak Touba te Touba ci kanam defoon ko fi mois de mars bi Touba ci kanam dugal na ci 492 mille 100 francs adduction d'eau muy mayam ndox ak di xëccal ndox ñi nga xam ne moom mooy quartier ko ajawoo ci mois de mars bi Touba ci kanam def na ci 5 millions 347 mille 698 budget de fonctionnement muy li nga xamante si ni moom la Touba ci kanam di doxee ci wàllum budget nga xamante si ni moom mooy génne yenn dépenses yu sew sewaan yi nga xamante si ni day urgent trop Touba ci kanam ci mois de mars bi def na ci 3 millions. commission sociale muy commission bi yor lépp lu ci wàllum dimbalante ci Touba ci kanam ci weeru koor gi gisoon ngeen ay taxawaay yu am solo yoo xam ne mi ngi ko doon taxawee mbokki taalibe yi dëkk ci biir dëkk bi niki noonu ñu ngi dëkk ci bitib dëkk bi te jege dëkk bi. muy ay ndimbal yu leen doon taxawoo ci weeru koor gi ngir seenu nekkin ci biir koor gi gën a mën a yéwén waaye tamit fexe ba saa su nekk ñuy am lu ñu ndogoo ci jamonoy weeru koor gi commission sociale doo leen ci defal ak taxawaay ba am am solo ñu tuddee woon ko social ramadan ginnaaw bi mbokk taalibe yi ñu ci bëri kenn ku ne yëkkatee la nga am def ci muy ceeb suukar ak tàndaram ak lu mën a doon rek teewul Touba ci kanam ci boppam génneewaat na ci keesam lu toll ci 31 millions 875 mille dimbalee ko commission social ngir mu gën a mën a taxaw mbokki taalibe yi jamonoy weeru koor bi commission membre sous commission membre muy commission sous commission bi nga xam ne moom lañ dénk lu jëm ci lépp lépp lu jëm ci wàllum carte ak reçu Touba Ca Kanam dugal na ci mois de mars atum 2022 bi 4 millions 750 mille salaire yi nga xam ne moom la ñu baaxoo di jox ñi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi moo xam ñu ne ci bureau bi la wala ñu ne ci terrain bi ak charge yi nga xam mooy charge fixe yu Touba ci Kanam 12 millions la 132 mille 300 commission organisation 379 mille 600 cent administrative 173 mille commission massification nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum yàkkali Touba ci kanam def nañ ci lu toll ci million millions 46 mille cent 860 frais bancaires yi muy li nga xam ne banques yi dañu koy dagg ci keesi Touba ci kanam yi ci compte Touba ci kanam yi di ko delloo siwaat tollu na ci cinquante sept mille trois cent cinquante kon bu ñu xaymaa li nga xam ne mooy li tubaat ci kanam génnee ci ay keesam ci mois de mars atum deux mille vingt deux mi ngi toll ci cent quatre vingt dix neuf millions sept cent quarante sept mille deux cent neuf cent quatre vingt dix neuf millions sept cent quarante sept mille deux cent neuf bu ñu dellusiwaatee ci li nga xam ne moom la ñu amoon ci mois de mars bi muy encaissement yi mi ngi toll ci cent trente cinq millions six cent mille sept cent soixante douze loolu bu fekk see li nga xam ne moom la ñu desaloon ci mois de février atum 2022 mi ngi nekkoon 650 millions 547 mille 206 loolu bu ñu ci doolee li nga xamante si ni moom la ñu jot ci weeru mars atum 2022 bi muy 135 millions 600 mille 772 Touba ci kanam day daal di am ci ay kontam 785 millions 607 mille 978 loolu nag bu ñu ci génnee li nga xam ne moom la ñu décaissé ci mois de mars bi Euh, mu toll ci cent quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent mille deux cent neuf keesi kanam ci mois de mars atum deux mille vingt li fi nekk ci ay koppar mi ngi toll ci cinq cent quatre-vingt-six millions quatre cent mille sept soixante-neuf mooy li nga xam ne moom moo des ci keesi Touba ci kanam ci weeru mars bi ñuy waxee yéen atum deux mille vingt-deux kon ñu ngi jaajëfalaat ak di sant di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér di jaajëfal mboolem mbokk taale bi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi joxe seen i addiya ci Touba ca kanam te di leen ñaan ñu saxal ko weer wu bu nekk ñu joxe ñaari téeméer ci ca kanam te xam ne sunuy ñaari téeméer yooyu ñuy dajale moom mooy defar dëkk bu sell bi di Touba jëmale ko ca kanam ba lépp lu Serigne Touba ñaanoon ci ma Madabul Fawzayni ñaanoon dëkkam bi mel noonu Touba ca kanam incha allah mën na dem ba liggéey boobu yëpp mu amal ko comme ni ko sëriñ bi bëggee ñu ngi ñaan suñu borom defal ñu ci ndimbal ak kattan ba liggéey bi sëriñ Tuubaa bëgg ci dëkkam bi ñu mottalil ko ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wajalilaahi maskani tuubaa baat misras mi xayri man abaat